asalaamaaleykum mbokki internet Baol TV SBT Média Leewtoo TV pël bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal euh, comme ni ma ko tàmm di defee rek noonu laa ko defaatee seet si ndaanaan champion xale bi nga xamante ne dafa ci yoon muy Kaw Gourdin ku ne xam na ne diggante mag euh, Ronaldinho la mujjoon ginnaaw ba mu jógee ci caatu daaw dafaal mu duggaat waaye ci diggante moom ak ki nga xamante ne mooy Baye Mandiaye xale bi nga xamante ne mos a dégg mu ñaan mais tey nag dégg na mu loolu ak làmb ñoo ànd ñuy félicité Ka Gourdin di encouragé ki nga xamante ne mooy Baye Mandiaye Baye Mandiaye ndax def na lépp wax dëgg neex yàlla yàlla àndu tax moom di la encouragé di la wax ne que làmb noonu la te lépp Sénégal la mbër maa ngi lay nuyu di la ziar di la félicité. merci maa ngi lay delloo nuyoo bu baax di nuyu internet yëpp yi ñuy seetaan rawatina waa Baol TV ak SBT. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ak to ah waaw sama waa ji Babacar ñu ngi sant yàlla bu baax di julliwaat ci yonente bi di santaat suñu ñaari waajo bu baax di santaat suñu sëriñ sëñ Abib si bu mu Abdou si si da baax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ah. waaw léegi nag sa salmini julfeɓe ka salmini fulɓe ɓe par ce que ɓe dardema ɓe fala kadi eh, salminaɓe haalnaɓe duwaw gewti wala mi ah. salmini pullo fuutaɓen fof wa guiné mi salminimon wa fuuta mi yi duwa ari hewti ay duwa hewti mi mm-hmm. faala kadi duwa pour saison on so yalti tun inchallah mi heɓo goto combat combat mawɗo inchallah soki soki eyi saison soki onɗo yahata mi mi kadi guejo way to mm. ayca <laughs> ñu continue euh, sa diggante ki nga xamante ne mooy Ronaldinho foofu nga jógee woon ngeen bëre lu rëy macha allah comme ni nga ko defee à chaque fois nga jógee fa nga dugg géejawaay géejawaay bi nga teg sa siis pour lan la moo tax nga génn géejawaay duggaat géejawaay. waaw dañuy santaat yàlla bu baax julliwaat ci yonante bi ah di santaat ñi nga xamante ne carrément ñoo nekk nii suñu ginnaaw muy waay ko de lutte Dalifor rawatina sama papa Père Tombe ak Père Babou. ak seeni Jal Diop Kayre Junior ak sunu président père Modou ak ki nga xamante ne mooy per Xaali ñoo ngi koy sant bu baax Pape Abdou Faye amuñu fayam ki nga ne mooy père Cissé tamit gis nañ taxawaay bu baax boo xoolee tey ñi ëmb kaaw tey rawatina ñi toog nii sama ginaaw ñëpp xam nga xam mooy loolu ñii làmb rek la ñuy dund dunuñu leneen lu dul làmb mais loolu nag dañuy sant bu baax ñi nga xamante ne ñooy waa Dalifor fooraay bi bàyyi wuñu kenn Dalifor fooraay bi pël waaye mën a guñ fa génne parce que daam am luñ daa am luñ fa luñ fa soxla quoi ah waaw ah. yaa dañuy ñëw ci wàccaay combat bi dayee bi tolloon ci man pël man dama ko waxaa ah. man ñuñ may jox nii nekkuñ sama làmb événement yàllaay ni ma doon pare rek ni ma doon pare rek laay pare non non lu muy yokku man saison laay entraîné saison bi nag lu ñëw dama ciy ne bëgg yàlla. nga ñëw jël xale boo xam ne daa nekkoon ci yoon ba tey sax dafa nekk ci musul dégg mu ñëw amul benn pression boo xam ne euh, gàddu woon nga ko wala jaralu la woon nga yokk say entraînement gën a améliorer pour ñëw tey confirmer comme ni nga ko defee. dama ko wax man damaa nekk ak ay ndaanaan làmb ma dépassé wallaahi azim mm. parce que dama jaar ci ay làmb yu bare bare bare bare rawatina ci mbapat. amul lu ma ci lu ma ci déggul wax dëgg yàlla kon tamit Baye Mandiaye moom itam xam nga làmb woon dañ koy encouragé bu baax a baax parce que xam nga ñu ñëpp ay xale ñu ñëpp ay xale lañ ñoo ngi koy encouragé bu baax di ko ñaanal carrière tamit bu bu nice mais comme ni ma ko waxee rek la quinze bi Baye Mandiaye da ci waroon daanu moo tax ñu jël ko waaw. dañ ko waajal. man du ma waajal mbër man damay entraîné rek ku ñëw nag boo bokk ci yoon bi ñu war la lim dañ lay lim. waaw parce que xam naa ni li nekk ci man nekkul ci moom. maanaam yi bokk. ñi ko dar ak ñi ma dar bokkuñu <laughs> bokkul sax wallaahi azim. ñan am sama entraîneur moo ko mën. du caaxaan de buñ sëggoon foofu arène nationale sama entraîneur daan ko ba jéggi ko ba pare boole ko dàq ko nag. ne ko ñibbi. acca. combat bi bari coow yéen ñaar ngeen waxante. ba ci open press am moom la doon yóbbante ay wax tey ngeen ñëw ci biir stade bi bi nga ko gisee mu doongali yaakaar naa suma juumul tax nga mu bokk ci li tax mu wàññi poids bi ko gisee mu doongali nga doongali ba tey yaa ngi woon ci biir làmb ji amoo dara loo doon maa ci moom may non man pël sama làmb sama làmb soog dëgg teguñu ko ci làmb wax dëgg yàlla ñii nii ñëpp nekkuñu ñu may jox pression ci làmb man Baye Mandiaye xam naa ne li may liggéey <laughs> xaaj bi xaajaat bi wallahi Azim du ko liggéey. <laughs> pël wax moo baaxul rek. da nga yenu hmm? yenu biir damay yeewu damay yeewu bi nga xamante ne nit du maye man maa yee sama bopp. parce que daam loo ko. waaw <laughs> wallahi Azim. lundi lundi ba samedi. maa yee sama bopp teg sama bopp lu met bu ma ci ñëw sama école de lutte ñu teg ma lu métti. cinq heures non géej ànd ak sélection maaro bi mhm. ma ñëw ak yow ci combat bi ci biir géew gi bi ngeen nekkee def seeni débat débat am na benn action bu bàyyi ma ñaay def nga ci xel ban action la la waaw loolu moom xëy na moom moo xam ne man xaw ma ko la man instant yow daan ko loo loo jàngatee loolu la wala gars yi ñu ngi ci ñu ci waaw ah, gars yi man de dégguma liñ ci wax sax man moom noo ko noo ko jàngatee nu ma ko jàngatee xëy na lu mu war a def la rek. ci làmb la bokk. ah xëy na moom ci làmbam la bokk. <laughs> mais yow noo ko jàngatee. waaw mooy li ma la. wala boobu yow ko rek. man instant yii noonu moom wax dëgg yàlla. daan ko <laughs> jéggi ko rek dàq ko laa doon gis. wallaahi daakaate bi mënoo koo bàyyi. yii ci saison bi la bokk te xam naa ne saison bi bu seejee nii bay ubbiwaat <laughs> leneen day ñëwaat de. bi arbitre sifflé lan nga ko def. li ma bëree moom lépp nag dañ ciy sant waa école de lutte Dalifor. non nga bëree laa bëgg nga ñëw wax. waaw moom laa li ma bëree dañ ciy sant waa école de lutte Dalifor parce que lépp ñoom la rawatina Père Tombe ak seeni Jal Diop Kéré Junior lépp ñoom la rek. dëgg yàlla ñoom ñoo ma ne carrément arbitre bu sifflé doxal pas ut ci ko bu taxawee nga taxaw te làmb ji noonu la demee dafa déclenché ku gauche ma dóor ko droite ma xam ne carrément sama droite dal na woo man moom yaa ma gën a xam. Ah, kon jot nga <laughs> sax booy mooy loolu foog ma dàq foog ma gourdin bi dal leen ba bare ma mun leen dàq. Euh, bi dal na. droite bi dal na mu dóoraat gauche ma dóor ko gauche dem jàpp ci wëkk tànk bi ci sebi bi laa jàpp. non sebi bi laa jàpp mu sigi bu mu sigee ma dawal dawal sama loxo ci devanture ngemb bi mu jàpp ne falaa laa yem ma ma ne dagay tànk bi daj ko mu toog. mu daal di jeex. non ah, day tam man dama dama <laughs> nekk ak ah, ay man du ma ndaanaan laa nekkal. ginnaaw bi lépp jeexee ngeen waxante loo koy wax. waaw di ko ñaanal jàmm parce que ñun ñëpp ay jeunes lañ wax dëgg yàlla te ñoo bokk job bi wax dëgg yàlla. Hmm. lépp lu mu doon def tamit ci làmb dong la ko doon defee après bu jeexee jeex na xam nga parce que même bu dul dara ñu ñoo bokk sport bu ñuy def. xam nga te wuñu la la nga xamante ne mooy safaan benn tàkkusaan la rek bu jeexee après jeex na ñu sekk jàmm ñoo ngi koy encouragé nag bu baax a baax ñoo ngi bu baax. daanaan bu dajeeg daanaan non ah. añaari daanaan ngeen moom. lan moo def daanaan pël. kan bàyyi ma booy du ñëwee daanaan sama ka. moo tax la daanaan bu dajeeg daanaan. non non du ñëwee daanaan wallaahi. daanaan nangul ko nag. non non xale bu nekk di bëri di mobiliser mu ñëw dajeex yow mooy ndaanaan bu dajeex ndaanaan dama ko wax ci benn interview ma ne ay pël nga dégg dama ne ko lu mu amul defet moo tax ma jël ko parce que daa war a daanu ah, non non moom moom mënul nekk ndaanaan sama kaw parce que maa ko daan kon kay super ndaanaan bi mooy man d'accord mbapat yi ren waaw d'accord bi saison bi ubbee mm. doon mbapat waaw mbapat naa mbapat naa mbapat naa tuuti rek tuuti tuuti rek laa mbapat. Dakar wala ci àll. waaw Dakar benn àll bi tamit benn. loo doon bëre man man fépp laay bëre man dama bëre lourd di bëre léger. Mm. parce que xam tey jii boo duggee ci àll bi nii tur bi da lay yóbbu fi nga xamante ne waroo fa bëre kon da ngay obligé bëre bëre lourd mais bu nekkee dakaar fii léger la ñuy bëre. Mm. Mm-hmm. bi nga doon am wala doon ñàkk. non bañ a am man fu ma dugg damay lekk yow. ñaata tournoi nga jël. non ren jëluma mais lekk na. da nga doon naaru <laughs> <laughs> yàlla mais sant rek sant rek. Euh, saison bi tëj ban jàngat nga am ci làmb ji. waaw ah, bi waaw tëj na ak jàmm de parce que lii rek jàmm la. waaw tëj na ak jàmm te ñoo ngi ñaan yàlla tamit bu tijji mu tijji tam ci jàmm. Mm. ñu am ci ay combat yu baax rawatina waa école de lutte Dalifort ak sama rakk yi nekk fii Dalifort rawatina ku ci mel ni caatu kayre ñoom Saba xam nga ñooñu samay rakk lañ ñoom Kaaw Cissé numéro 2 xam nga ñoom caatu waalo ñooñu ñëpp sama rakk lañ ñoom Looso moom sama nijaay la ñoom Moussa Ndoye xam nga ñoom caatu yaraax ñoom wës jàmbaar cent pour cent yaraax bi tey ñoom ñëpp ñëw kon tamit dañ leen di ñaanal tamit saison bii di ubbi sunu grand Moussa Ndoye yàlla may ko combat bu baax mu ci victoire. ci barke yeneen say adversaire potentiel ñan la kaaw fu mu teg ay bëtam wala siège bi foo ko teg da nga koy génne géej wala foofu nga koy bàyyi. siège bi mënul génne géej waaye pol. ñan nga soxla am ñu ma soxla foofu. soxla woon naa marle mais am na combat. waaw am na combat instant yii nii kan kenn moo fa des mooy Fils de Balla. kenn Fils de Balla kese moo fa des keneen kan moo fa des. ana ñeneen ñi. non ñooñu ñoo fa des daam ñeneen limon. non Alioune Seye 2 loolu mënul ñàkk parce que Alioune Seye 2 la nekk amul combat amul combat. Ah, te vraiment bëri caatu waa caatu booy bi booy bi non non booy bi ah, dañoo daje arène nationale ma tëkku ko. Euh, non moom Alioune Seye waaw. mu ni ma samay rakk bëreel naa ak rakkam daan ko ah lu ci des moom moo ci des. des rakk la. ni mu foogee ay ñoom Pape Thiam. Mm. ay ñaabu ndaw. ñooñu ñooñu ñooñu ay Macha Pereira ñooñu lan lañ ci làmb. ay Papa Boy Djiné. ñooñu lan lañ def ay rakkam da nga ne du benn rakk dama ne la ay rakkam ñoo fa. moom du ma bëreel ñooñu ñooñu am nañ samay rakk yu ñu war a bëreel fii. comme ñan ci mel ni ñoom Oli Gëns la ñu war a bëreel. ñoom Caatu Kayre ñoom Antu Ndiaye. waaw ñooñu nañ ñoo bëreel ñooñu quoi. mais man ñoom seen seen mag yi laa soxla. waaw noonu la demee. léegi amul fay lool ngay wax nag wuñ de li nekk ci ñun la ñuy wax de yàlla wallahi azim te buñ ñu ko joxee ñu daan ko buñ ñu ko joxee ñu daan ko Alioune Seye sunu grand frère may ñu chance moo gën moo gën ngay jël paa yi nga xam ñoom Zos ay ñoom Issa ah, waaw ñooñu Zos bu ma mayee chance ma jël la ah, bu ma mayee noo du pas ci man mais Alioune Seye Alioune Seye dafa yàgg ci làmb wallahi azim Alioune Seye bu muy bëreeg ñoom Modou boobu ñoo ngi ñoo ñoo ngi ci ren bu muy bëreeg sunu grand Moussa Ndoye boobu bëreeguñu ren wallahi azim mooy loolu jaajëfal di la kontaane ma bàyyi la ak suñu mbokk internet yi nga nuyoo nuyoo nuyu ku la neex gërëm ku la sax esaay dafa am ndam nag esaay damay gërëm ku ko neex esaay kay xolal mooy loolu ndam dafa neex <laughs> ndax mun mais santaat yàlla bu baax a baax wax dëgg yàlla julliwaat ci yonent bi di santaat sunu waajur bu jigéen bu baax a baax di santaat sunu sëriñ sëñ Habib si bu ma Abdou Aziz si da baax di santaat bu baax ñi nekk sama ginnaaw ni aw ma seen fay wax dëgg yàlla fépp fu kaw tollu ñoom ñoo ko ñoo ko yóbbu foofu. Euh, non ñooñu moom ñu moom yaa ma gën a xam waa Mbartal mi. non loolu dafa yàgg zone noire bi moom xam nga ni. nu mu demee la rek mais taxi yi sax ci kanam tuuti dañuy wàcc de. dañuy ñëw dañuy changé couleur waaw changé def verte wala affaire yooyu. loolu force lay doon zone noire bi moom Kaaw Gourdin moo ko moom. instant yii nii surtout taxi 52 bi nekk Dalifort ñoo ñëpp dañ ñuy bëggee ñoo ñëpp dañ ñuy bëggee ndax zone noire bi kon tamit sant yàlla. sama grand frère bi ba mu solee zone noire di barki dem ba léegi lii la sol moom gis nga ko moom sama mag la. xam nga mais moom it xam nga amuñu fayam ko wax dëgg di santaat Père bu baax di santaat waa Pire as ñoom as ñoo ngi leen di sant bu baax waa Pire ñoo ngi leen di sant waa Tivaouane seen fay ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax waa Ngaay Mexe ñoo leen di sant waa Nguma Ngéewul tamit amuñu seen fay waa Kel amuñu seen fay waa Màkk Barageey waa Paal ah waa Sàkkal waa Raw waa Ndar sama mbokk yi tam Fuuta ñoom xawaa nget xawaa nget maa ngi lay may victoire bi nga joxal ma ko sama mbokku tukulóor yi fan nekk yëpp xam nga waa tamit amuñ seen fay di santaat yàlla bu baax waa jaxaw tamit amuñ seen fay waa Boof amuñ seen fay waa Felaan amuñ seen fay André gis nañ ñaani ah waa Jaxaaw duñ leen fàtte dëkk Père Tombé duñ leen fàtte benn yoon waa Caajaay gis nañ taxawaay bu baax xam nga gis nañ taxawaay bu baax waa Caajaay tamit gis nañ taxawaay bi waa Fatick waa Njaay Njaay As Aliou gis nañ taxawaay bi waa Nguy tamit gis nañ taxawaay bi waa Mbour Baye gis nañ taxawaay bu baax noo taxawee ci combat bi ah wax dëgg yàlla gis nañ ko bu baax a baax a baax a baax di bëggee tamit boroom ñaari paaka yi borom ñaari paaka yi ñu ngi koy bëggee bu baax di santaat yàlla bu baax a baax rawatina sama fans yi nekk jaxaaw seene nu mu tudd jaxaay almaa yi ñoom it moo seen fay waa Kër Masaar sama mag bi fa nekk ñoom ñëpp gis nañ ñaani ñaan yëpp agsi na wax yàlla pël sant yàlla rek parce que kaaw moom instant nii kaaw kaaw kaaw fépp la quoi waa diaspora bi tamit fàttewuñu leen waa États-Unis ah waaw waa Mboro sama gars yi ñoom am kaaw Cissé 2 di laasawaat appel bu baax sama grand frère kaaw Cissé 2 kaaw Cissé bu mag ñoom ngi waat appel ci moom bu baax xam nga yàlla defal ko jàmm ba mu génn foofu noonu wax dëgg yàlla victoire bi victoire am la di bëggee bébé Motlo ak mboolem bébé Motlo ak mboolem ñu fa nekk parce que am naa fay budul moom kese sax wax dëgg yàlla xam di bëggee tamit bébé jén moom itamit ñaanal na ma ci combat bi ah. waaw ah, ah, ne da ko bandum ñun Pël Fuuta yi fu mu toll nii mooy la de. association ah, non dafa leer. ànd doon benn di wallaahi xam nga tamit moom itamit ñaan na ci combat bu baax Ronaldinho bu tëngeej moom tamit jàpp non léegi sama waay la léegi sama waay la xam nga maam dañoo bokk lu yàgg na moom sama waay la daf ma bàyyi victoire bi xam nga dañoo bokk lu ñu mënta séddoo muy sëñ Babacar sama jox père dëgg ziar ba yaa si jàmm dama ci am baba te daa bu baax a baax a baax su waxee rek ah. wax kaa ku baax ku yaru ci ñi mi entraînement mun a bëre kon donc loo ko dol day dem loolu moo ko may lii bilaay loolu moo ko may lii dafa yaru ba pare ñeme li muy def te mun na ko kooku dafa neex a jàppale séeréer séeréer pire fi toog sa diggi buur a ngi nii waaw mais simna nun to santa nun nen ndamit na kaw ne kombaan ne fop ndam tu kaawoyo waa Fatick waa Jaxaaw ten tout ndamu no kombaan ne wataga adna ɓof wata ande na tout den ndamun combat ne yaam xar yaam weta jeg na a cinj ale we ndefna cinjum no seereer ka refe seereer nda seereer ndefu a cinjum oyo den ndamtuna paaxa paaxa yasam roga mbotan fop waaw jaajëf jaajëf waaw sant rek pël di sant rek waaw waa France tamit amuñu seen fay waa France ah ku ci mel ni Ousmane Kempes Aïda Souarou ah Baye Dame amuñu fayam xam nga moom itam jàpp na ci bu baax a baax ñoom daa ñoom ji fay ñoom koso ñoom ñëpp jàpp nañ ci waa États-Unis tamit astu ñoom itam jàpp nañ ci bébé motloo tamit jàpp na ci bu baax bébé motloo bu parcelle moom itam jàpp na ci bu baax waa gisu xam-xamu làmb aw ma seen fay gis nañ taxawaay bi waa axlu làmb mafi mafia laalaake bi gis nañ seen taxawaay bu baax mafia laalaake bi gis nañ seen taxawaay di sant tamit waa sélection maaro bi amuñ seen fay waa mafia njaga bi tamit amuñ seen fay waa mbartal mi amu amuñu seen fay saala saala yi ñoom tamit amuñ seen fay waa ixi max tamit sama booyooyu amuñu seen fay di sant ñi nga xamante ne carrément képp kuy bëggee Kaaw rek fépp foo mën a ne sama yaay Awa tamit maa ngi koy gërëm bu baax gis naa taxawaay bi Awa Ñaa sunu monsieur le maire Baye Diop moom tamit jàpp na ci combat bu baax Alex Campbell moom tamit jàpp na ci combat bi bu baax a baax a baax a baax a baax ñi ci jàpp ñëpp bu ñu doon tudd fii duñ fi jógee hmm. mais dañuy sant ñëpp di gërëm ñëppal di di la xamal ni xam nga lii donc moo fi nekk ñëw nga fi ñëwaat fi te dañuy ñaan yàlla nga ñëwaat fii ci li nga xamante ne mooy lu neex rek incha allah rabbi ñu bokk la di la bëggee bu baax di bëggee sama jigéen sama xarit nday ah, Mbacke moom sama waay la sama grand mas tamit aw ma fayam ah maa ngi koy bëggee bu moom sama waay la yow sama mbokk nga yow mm-hmm. xam nga yaa ma gën a xam man yaxay yaxa labe wala pita wala leelu ma <laughs> waaw maa ngi sant sunu caméraman bi ah yow xamoo nu mu tudd Badou waaw moom tamit ñu koy béggee bu baax di béggee Kayre Junior bu baax non Badou sunu waay la sunu waay gis nañ vidéo yi photo yi tamit après nga envoyé ñu ko mm. <laughs> non jox tombe mu tëj ko ana toom père tombe ba kii di séeréer waaw maa ngi lay ziar soxna victoire bi noonu lañ victoire bi comme niñ ko daan dundee rek eh, xam nga ñun moom wax dëgg fa eh, ñun ci làmb rek la ñu yëngu man làmba ji defe naa ne ah ku ma ci jiitu nekkatul fii fu ñu toll nii amut ndax fu ñu toll nii ñun biñ fi nekkee euh, pa kii Ndiaye Moustapha njaay moom moo ñu doon intéressé bu ñuy bëree fii su may karang combat yu bëri fii stade moo ko moo ko moo ko kii loolu moo tax li ci gën a bëri reer mais ci la ñu dund ndax fu ne nii bu du bu matul 30 euh, na ko yoo xam ne ñun ci làmb ji rek la ñuy yëngu donc fu ñu toll nii nag eh, lii rek moo mën a am xëy na suñu xol xaw a sedd tuuti ndax man bugguma dara lu dul làmm màgg su ma neexoon damay toog jàpp sama njàmbur te sama liggéey. waaw dëgg noo non kii maay buuram <laughs> waaw parce que li tax mooy pol ak séeréer dañoo yàgg du fii xam nga am na ñu bëri ñoo xam ne xëy na dañoo comprendre mais pol ànduñoo fii fii du du fii Sénégal rek ñoom dañoo yàgg ànd. donc bon fu ñu toll nii bu ñëwee bi boo xoolee pël mën nañoo dekk cent ak quatre am benn jafe xëy na beneen race la mën a doon ndax ku nekk da ngay moytu sa moom donc bon fu ñu toll nii bu ñu àndee moom mii mu ñëw nekk sama loxo muy nekk xele boreegu mu nekk sama loxo ma koy jàngal di ko jàngal di ko jàngal di ko jàngal ba fu mu toll nii donc bon fu mu ne nii mën naa la wax ne amul dara loo xam ne reer ma ci moom non mënta ne parce que maa ko comme maa ko jàngal lépp. état yi bu mu ne nii wax naa ko sànq rek ci interview bi ma doon def foofu stade man leen moom lu mu jàng ba léegi defagu ko. kon day fo nii waaw day day faatu noonu rek day kii noonu rek parce que bu ñu dool nii ñu koy jox moo leen upp doole. ñoo koy upp yaram mais moo leen upp doole. parce que da ngay seetlu dama li ma bëgg li ma lay wax noonu dama bëgg nga xool ko boo xoolee ñu mu bëral nii ci diggante bi ku mu yu bëral da ngay naan kooku moo koy war a upp doole mais bu ñu jàppante lu ñuy gis. daa dañuy def jeex na mais nag après comme nu mu ko waxee la wax dëgg fa yàlla itam fu ñu toll nii man balaa ma gën a sawar ñu jox ko ponkol yi rek ñu essayé. poulet bi kon trompeur la de. wax kii sa mbokk la. non loolu lañ bokk xam nga fu mu ne nii ma ne yow ndox bu lay rey demal géej. net la bay day neex. loolu lañ soxla ah waa déet li ma lay wax xam na li ma lay wax nii dafa nekk lu leer. parce que waaw donc bu ñu tollu nii nag ci instant def ca tollu moom lu ñun bu ñu toll nii lu tar lañ soxla. Ah. lu tar la wax lu xottee. waaw déggoo ma de fu mu tàngee rek mu aw ah, ñun xoolal ñun cin bu baax lañ yor amuñu fu sedd. soxla wuñ ko bëgguñu lu ñuy upp de loolu. gara déggoo li ma la dañoo bëggul lu ñuy upp. dañoo bëgg muy bax ñu dugal suñu loxo. waaw lépp leer. mu jeex na tàkk. xalaat ma ne déggoo li ma de. la la. rek bëgguñu ko. amul calcul. bu calculé. dañuy non dañuy jaale dañuy jaale suñu benn supporter bu wàññeeku fan yi bu Babacar wax dëgg yàlla di jaale yaayam bu baax yaayam da doon jàpp suñu combat togg yi sax da doon ñëw wax dëgg yàlla fanjaay ñoo ngi lay jaale sa doom boobu muy sunu rakk di suñu jarbaat wax dëgg yàlla waa kër Matar Gueye tamit Tëngéej feene Pout aw ma seen fay waa Kees waa Kër Matar Gueye aw ma seen fay mais maa ngi ziar ñëpp di la ziar pël di la bëggee bu baax a baax baax di ziar ñëpp di bëggee sama gaay yëpp wax dëgg yàlla waaw kontaan naa trop. ay ca mbokk jërë ngeen jëf nee leen man ñoom ñoo far daan na Baye Mandiaye mais Baye Mandiaye sama xarit la moom sama xarit la te wolof Ndiaye nee na nit waa sama mbokk nga mais moom it sama nit la yéen doon bëre. yàlla yow la àndal ah non samay nit lañ xam nga àdduna maanaam da ngay wax li fi ne sama mbokk la sama xarit la sama frère la non ma ragaluma loolu man xam nga ne nekkuma ci yooyu <laughs> yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm ndax yéen ñëpp da ngeen di liggéey yéenay mayante xaalis c'est le yow boo amee fii ngay indi mais teewul yéen nga bàyyi ma njaay jàmm bàyyi ma njaay bu amee këram la yóbbu mais teewul yéen na la jàmm te tey bu jeexee jeex na da ngeen di bokk ndey bokk baay làmb la woon jeex na di ñaan jàmm ci réew mi yàlla na jàmm yàgg damaa mën a ruube nag nii laa mel di leen jox dig daje beneen daara beneen champion day day Mbàkke maa ngi lay béggee di la kontaane dix heures lañ génn suñ kër ba tey jii il est léegi benn heure jëf zéro heure jaa ngeen jëf yàlla jàmm yàgg. ne doko banno ah. merci